da nag ci biir promoteur yi maay tëgg kii maay tëgg kii bëgg mus mujj nanoo gis fi combat yi mujj est-ce que fi combat yu mujj foofu la waroon a mujj yooyu combat la nu soxla woon wala déet loolu lépp bu soobee yàlla mbokk yi nangeen ngeen toog dinañ ci waxtaan dinañ ci indi ay leeral ñu ngi leen di gërëm bu baax ci jàkkaarloo bi ak cofeel gi nga xam ne moo ngeen am ci pénc mi ak waxtaan wi ñu ci waxtaan bay bay bàll la jërëjëf As maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di amaat mbégte ak contentement bu mag ah jàkkaarloowaat ak yow fii ci émission bu mag bi di pencum làmb di nuyu suñu ay invité ah mbay guy gi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Diène Kaïré di nuyu nag euh, ah chroniqueur yu mag yi ci plateau bi Bour Géwël Fadam Babacar le grand arbitre ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax asbekaay bu ma ñëwee ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Diène Kaïré nekk écurie Soumbédioune ah doon ndaanaan ci làmb eh. tey doon ndaanaan ak di bàyyi ko ci écurie bu mag boo xamante ni ay expert ñoo fa nekk benn ci baayam booy Kayre ah loolu moo ko indi tey fii mu toll ci làmb eh. AS Bécaye Diène Kayre def na quinze combats dix victoires quatre défaites ak benn match nul su ma ñëwee ci premier combat jën Kayre premier combat mi ngi ko bëri ak Ibou Laye boobu jën Kayre daf ci ñàkk waaye deuxième combat mu ñëw bëri ak ki nga xamante ni moom mooy cat am ci ndàmm ñetteelu combat am moom Diène Kaïré ñu boole ko ak ki nga xamante ni moom mooy jéggi siraat Diène Kaïré daan ko ñeenteelu combat am mu bëri ak ki nga xamante ni moom mooy Jibi Mbote Jibi Mbote nam champion la woon boo xamante ni Pikine la dëkk doonoon daanaan tolloon ci ay. daanaan yu ndaw yooyu rek ah, ah. daanaan yooyu ah doo daanaan. Jibi Mbote ah Jibi Mbote. naa ah ñu jox ko mu daan ko. cinquième combat am ñu jox ko Youssou Ndour bu Balla Gaye Youssou Ndour bu Balla Gaye mi nga xamante ni moom it moom mujjee bëri ak ki nga xamante ni mooy Mor Kankang ah Diène Kairé daf ko daan sixième combat am ñu jox ko ki nga xamante ni moom mooy wulli jën Kairé am ci ndam septième combat am Pambaay numéro 2 moom moo ko daan Diène Kairé dem ànd ak waa Sumbujun defarwaat ñëw ñu jox ko xale boobu nga xamante ni moo nekkoon koña Koña nekkoon ndaanaan moom tamit sonaloon génération ñu bari nekkoon bërikat boo xamante ni dafa jekki saay rek gedd làmb ji dem fi nga xamante ni moom mooy Amérique kooku Diène Kaïré moo ko daan ci Sadium Iba Mar Diop ah ma ñu jox ko ki nga xamante ni moom mooy Malaw Seras Diène Kaïré daan ko jóge ci combat am diggante ma Malaw Malaw Seras ñu jox ko booy Bawal booy Kaïré daan ko booy Kaïré ñëw ñu jox ko ki nga xamante ni mooy Boy Sey mu mu jëre ci défaite diggante ak Marley mu bëre fa bëre bu rëy moom tamit am fa victoire mais diggante ma Quenz nekkoon combat boo xamante ni combat bu bëri woon coow la. naxante waaw combat combat naxante la woon. nekk daf ko bëggoon nax quoi. waaw daf ko bëggoon a jëli ko. combat ba combat ba yàgg ñu bëre combat bu yàgg ñoom ñaar ci arène national boobu temps xaw ma dafa miinagul woon euh, arène nationale xaw ma moom Diène Kairé ñu bëre match nul la ca jële ñu jóge foofu ñu jox ko ki nga xamante ni moom mooy Zarko nekkoon combat bi nga xamante ni nag mooy. moo ah, Modou Anta. ah mu donte waaw. mu bëre naa mu daan daan mu donte. ak marle. ñëw naa ci Marley léegi bi mu jógee ci Marley daan ki nga xamante ni moom mooy Moodu Anta bi mu jógee ci Moodu Anta ci la ñëw nag ci daj dëpp gi Zarko nekkoon komba boo xamante ni combat bu bari woon coow la ñoom ñaar ñu lu ne te keroog bi euh, Diène Kaïré di ñëw ni mu def stadium li euh, mu def euh, arène nationale bi Gueule Tapée Fass Colobane ñëpp a génn ñëw soutenir ko ci combat boobu ndax combat boobu dafa amoon dayoo ci moom combat boobu dafa bari woon coow combat boobu nekkoon combat boo xamante ni am na feneen fu mu ko mënoon yóbbu ci làmb mais malheureusement daf ko ñàkk kooku moom mooy ki nga xamante ni moom mooy Diène Kaïré Diène Kaïré champion la champion la daanaan la dafa doon lu bëri Boy Kaïré mooy sama baay rek doy na mbër balaa ngaa ñëw ci mbay guy gi mhm. bu boo bu nu waxee palmarès bi mhm. waaw palmarès bi neex na waa neex na ma ñaata défaite ci nekk defet défaites ak benn machine yi victoire waaw neex na ma sant yàlla parce que bëri na samay moroom yoo xam ne ñoo départandoo tey te yàlla indi na ma foofu foo xam ne si làmb ñoom yegg si wuñ fi mhm. kon loolu sant la malgré nag li des moo ëpp fuuf waaw avant tout damay dama leen nuyu yéen ñëpp di rafetlu émission bi di la nuyu père di nuyu champion Mbaye Gouye ñoom buur géwél xam nga waaye bala ñoom ñëpp di nuyu suñu père yi ñoom Fadam di nuyu gars yi ma àndal yëpp waaw ku ci mel ni Baba Diaw Thiam production vraiment moom day jàpp suñu carrière di daj lu ne ak ku mel ñoom am di Paa Omar ak di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu waa Medina yëpp Fass Gueule Tapée Colobane waaw cité Asecna Derklé cité Marine Kassoor xaar yàlla ñëpp Sénégal yëpp daal ak képp kuy bëggee jiyéen mhm. maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm waaw di ñaan yàlla daal xam nga jàmm ji am ci commencé am ci réew mi ñuy yokk waaw yàlla na ko yàlla yokk ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaw dërëm bi génnul gaal gi xam nga nañu jàppante ñun ñëpp liggéey suñu réew Sénégal jëm kanam jaajëf ñu waxtal ci laaj bi ba la laaj léegi est-ce que kontaan nga ci palmarès bi. waaw mooy li may wax kontaan naa kontaanu ma ci malgré leer na ma ne li des moo ëpp te man xam naa loolu vraiment commencé gu ma sax si man am na leneen lu ma war a wane ci làmb ak fu ma war a yegg ci làmb. li nga ci kontaanul lan la. waaw li ma ci kontaanul mooy mooy dafa bëri combat yoo xamante ne dama ko perte mun naa ne waruma ko perte. lu tax. ah ndogalu yàlla rek laa koy teg de parce que yoo combat yi ma gën a fonk gën a daj ay coono. gën a am confiance ne combat bi dama kay gagné moom la ma yàlla xañ mooy bu ci mel ni bii passé mais damay sant rek di féliciter sama adversaire aussi noonu la ko yàlla bëggee woon mais en tout cas moom li am solo mooy samay supporters xam nañ kan mooy jéen <laughs> waaw. baax na loolu mais sa diggante ak Moussa Ndoye fi ñu ci toll. Hmm. sa diggante ak Moussa Ndoye ñu ngi ko doon dox. waaw gars yi ñu ngi si mun naan ay année ba tey ñu ngi ciy dox ba nii nii rek am na ñu ciy waxtaan daal mais loolu dañ koy bàyyi ci loxo sama agent Baba. xam nga yàlla baax na. dinañ ci ñëw Babacar. waaw man dama koy nuyu. Euh, di ko remercier vraiment ci teewaay bi. mais également di ko encourager. Mhm. en tant que champion. mais dama d'accordul ak moom. waaw ah. parce que soo xoolee euh, ren lay def quatorze ans ci ci làmb ji. waaye mhm. donc quatorze ans nekkul lu tuuti. te ba léegi mënul génn ci espoir yi. voilà loolu nag souvent dañuy am benn jàngat soit c'est une forte pression. bu dal ci kawam. waaw cent pour cent Médina bi. Mhm. wala la présence du père. Mhm. wala mu am une explication sportive. waaw parce que gis nañ ko aussi mu dem États-Unis ñëw mais nul la ñu indil. Mhm. te mënuñu comprendre. moom. mooy bi muy bëri coins. ba muy bëri coins. te bëriwul ah. ah bëriwul de. oui loolu la loolu laay wax nax coins. parce que parce que parce que ñun mënuñu comprendre. cest à nga am un per technicien. tey actuel directeur technique de l'équipe de lutte de Dakar. de Dakar. xam nga il a fait des preuves parce que moom ba léegi sur le niveau de record de victoire. Mm-hmm. amul gugul ku ko égale mm-hmm. donc Diène Kaïré tey daf ñu war a wax. moom. Mhm. lan mooy difficulté lan moo ko me lan moo. waaw lan moo tax vraiment. tey dans le cercle des VIP kenn dégg ko fa kenn gis ko fa. mën nga tontu ci loolu avant ñuy continuer. waaw mën naa si tontu. ñu la bloqué bu mu rool ngay am ay ngay def nii quoi xa genre dollar yooyu quoi. <laughs> waaw xam nga yooyu dañuy sant yàlla rek man loolu laa koy gisee malgré xam naa ne li may jàpp chaque bi mooy dafa jotagul. mais lépp li war a def li may wax rek samay morom non parce que dafa ne la sur le plan sportif xam nga ay dañuy sant yàlla lu waxu mbër yooyu ñun waxuñu ko mhm. <laughs> ñun ñëpp dañuy sant yàlla mais est am du problème manque d'entraînement mhm. wala pression bi la sa papa di teg mhm. wala wala pression wala pression Médina bi moom nga attan wala est-ce que attan nga ko est-ce que attan nga sax écurie sumé jun waaw non man diggante boobu gis gisuma fa gisuma fa pression uh-huh. waaw mooy li may wax chaque jour rek musumaa ñëw combat si meeku ñu ne jéen mi parewul mhm. saa yi may ñëw damay ànd ak samay mboq daj lu ma war a daj lépp si làmb entraîné bu baax fépp fu ñu yaakaar ñu dem fa comprendre nga mhm. su ma ñëwee nag daanu man mii sax daf may jaaxal mhm. waaw mais mais du question côté sportif wala beneen côté wala dara déedéet mais wax naa la léegi par exemple sa combat ak Quench ma ne la bëréwoo dëgg la nangu nga waaw nangu naa ko boobu bëréewu ma lu tax boobu dama jëloon poids moom daf may daf maa yéexal. daf la daf la waaw. daf maa diisal waaw damaa lan trop ci biir géew bi et boobu la aaree di doog ubbi si diis. suuf si diis waaw damay bëgg def action sax mais xam nga da ngay xam ne fii moom mooy loolu <laughs> waaw. Euh, Fadam dafa am loo ko ci maa ngi nuyu réew mi di naa ne tey jii invité nga koo xam ne ni tey jii li a wax ak moom bari na moom mbéy gi yëpp mais man fi may ñëw ak Diène Kairé mooy damay jàpp ne tardement bi am na bu ko nangoo bu ko nangul lu la ndax bokkoon na ci espoir yi nga xam ne ci làmb espoir yi ñu gënoon a yaakaar ci làmb heure bii dañoo waroon a wax ne Diène Kairé mook amaa Baldé ñooy bëree wala Diène Kairé mook Boy ndax débuté bi mu débuté woon ci làmb mu toog diir bëriwul mm-hmm. mu toog diir bëriwul te diir boobu mu toog bëriwul am na ay combat yu ko ci mhm. jàpp ne Diène Kairé tey jii ci carrière am combat yooyu doon raté ci carrière mhm. ba tey jii bëri ko te combat yooyu moo nekkoon ay combat de classement am. waaw ndax bi mu bëri ko woon si ba pare avant am na ay combat yu ko proposé te bi mu bëri ko toppatoo yoo xam ne sax mën naa gis seen tour mhm. ku mel ni Jos doxoon nañ seen combat ba combat de classement la woon ci moom. waaw te combat yëpp dafa faayoon ci côté am ñu demoon ba kenn xamul lan moo taxoon Diène Kairé mu am problème pour déclencher ci comme ay moromam waaw loolu tamit bëggoon nañ ci mu leer ndax tey ji tamit ñëpp xam nañ ne yàllaa fi nekk mais tey ay yàlla baax nag yooyu tamit jéem bu yóboo nga jàppalañ ci tuuti rek waaw ñu mu gën a leer koo tamit voilà kooku bàyyi ñu ñëw ci béy bi après dina ci dina dina dina ci ñëw buur loolu balaa ñoo dem ci mbéy guy gi yow jéen loolu lan nga koy waajal waaw je maa ngi lay nuyu di réew mi yëpp di nuyu ñaari champion fi toog di nuyu Baba Diaw mu baax ma le di nuyu coach Babacar mais dama am euh, par rapport benn analyse bu ndaw par rapport ak li Babacar wax mën naa ko appuyer mais man li ma jaaxal mooy génération bi ngeen bokkaloon ñii tukki nañu ñii stagné. jëlal booy bool. jëlal ku ci mel ni Ramdan yàlla na ko yàlla yërëm. jëlal ko ci mel ni Fourouz jëlal ko ci mel ni Koña maanaam ñi bokkaloon même génération même group bi y problème. boo xoolee ñi déclanché dañu fëlee ci seen gannaaw jéggi leen bien vrai que Diène pour mu accepte wala pour mu avouer ne xëj na le poids de son père joue sur sa carrière du yomb. Mhm. Mhm. il faut qu'on dise la vérité aussi. Mhm. mais aussi mën na nekk benn vérité bu bu relatif bu palpable ci ñaari sens mooy ci benn sens bi tey li mu doon ak fi mu yëg si c'est son père qui l'a forgé. mais est-ce que ci context bi mu ko forger ba indi ko bi fii ci étape bi mu nekk tey. est que ci beneen étape bi ñoom ñoo waroon a ànd. ñoo waroon a ànd est-ce que waru ko woon a libéré. loolu problème mais mais mais attends c'est le mal des anciens lutteurs aussi. waaw parce que gis seen doom du ba kenn jege gis nga âge. booy dama ko gis bi muy nekk xale ñëw mbappatul ak la mm-hmm. guerre ca terrain xar yàlla terrain gaal gi. Mm-hmm. sol benn tenue kaki bu beige. Mm-hmm. tu vois benn xale bu dooj bu sawar. bu am caay yu mbër mais vrai que boobu xale bu tuuti la. mais jéen dafa mel dafa inverser les rôles. ah merci. bi mu nekkee xale engouement bi. jéenu hmm. musaana ñëw rek beere verre yi tàkk. ba mu daan ba def def yëfum yooyu. jéen hmm. di gën a dem ci carrière am di gën a afoon. wala di gën a non non di wane euh, sagesse. waaw di wane sagesse waaw te tolloogu ci. te caay caay yu mbër ci. tolloogu ci ci caay caay la war a caay caay yu mbër la toll. mais. Euh, euh, lu koy illustrer mooy. le son dernier combat avec Zarco. Mm-hmm. il était trop serein. Mm-hmm. xam nga ci géew bi ci géew bi. ci géew bi et bàyyi waa ji ak show bi bàyyi waa ji ak soow bi. Mm-hmm. te am na euh, bis fu muy toll. yow nga nekk jeune comme te te par rapport à lage xam nga Zarco moo ko gën a féete mag. xam nga tey waru woon am boobu tempérament. il devait avoir un tempérament de mbër. caay caayu mbër. caay caayu mbër xam jën tey fu mu demee tey fu mu demee tey ba biir faas. mbër yi mujjee génn sax lu teganteeg moom na ci problème de leadership y a problème. les Ada Fass les Diène Kaïré bébé Diène di ko wan bébé Diène ñooy borom Médina ba muy jur benn xëqante ci seen biir. te waroon na leen ci ah, ci biir supporter alors que ñoom bi ñëwee. dañ ko waroon a xool comme seen doyen wolof nag dañuy bukki bu dabee punkal alaaj sàppali ci doxin ci doxin ba la mais combat boobu euh, asbekaay par rapport ak bi moo bari woon ci Diène Kaïré digganteem ak que sa papa li mu nekk est-ce que pression bi bari la waaw man tey mën naa ne waxuma la moom de mais ñu bëri lenn lañ ma topp bul topp Zarko si ay rythme loolu bokk na sax ci li ma nangu naa ne bokk na ci li ma. perte loo combat bi mm-hmm. te da ko waroon a. man dama ne fenn rek laay concentré wu. arbitre siffle lay génn sama diggante moom xam naa ne maa ko mën foofu laa focus def na ma yu bari yoo xamante ne si biir géew bi bokkul woon ci làmb te mënoon naa ko bañ. Mm-hmm. loolu bokk na erreur bi nga xamante ne xam naa ne tax na ma perte combat. waaw mais et puis ak. Euh, euh, hmm. et puis leen fàtte ni il a réussi devant tous ces jeunes là. waaw non mais show boobu ga ga tout dernièrement avec. Niabou euh, Ndaw oui même Niabou Ndaw riposté na. mais Bécaye. wane na xadar mais réussir na ko. Bécaye li ngay wax nii. Hmm. Zarko da def parce que ñoom xam nañ ni le combat ce n'est pas uniquement un combat physique. Mm-hmm. y a un combat psychologique. psychologique mm-hmm. ah stratégique. dafay am. Mm-hmm. te ñu mel ni ñoom ñoom jéen euh, war nañu mën a nekk loolu c'est-à-dire mënoo nekk booy Medina. xam nga. Ah, di foowee Soumbédioune. ah di dox Ricis. ah. dëkk gannaaw quartier Layeen. Mm. dëkk koñ koñ alaaji Papa Dieng. voilà voilà <laughs> doo doo waroo waroo mun a am yenn caacaay yi. xam nga donc donc il faut il faut il faut il faut que moom. Uh-huh. ñu wax ko mu war a briser les barrières. Uh-huh. dëgg la c'est ça lu ci nekk lu nekk ci moom la moom fu mu nekk nii. ci moom mais dafa am foo tudd léegi lu ko baax rek foofu alaaji ma bàyyi bàll ci yow laay ñëw ñu ñëw ci. mbéy ba bawal bawal bi. <laughs> Euh, ci li nga wax ci Pape est-ce que bi Lac de Guiers numéro un nekkee sawet wet. Hmm. gënoon woon a libéré wu. Hmm. ak bi sa a nekkee sa wet. ah si si dëgg la. waaw ah, parce que Lac Guiers la wax nga la am na moom laa gën a firil oh. Pape yi xam nga rek dañu am. dama am benn kersa ci moom. waaw waaw bu dee père la xam nga dañuy waxtaan soulage ak yooyu. waaw li nga xam hmm. bu dee paa bi xam nga rek moom dafa may libéré. libéré Lac de Guiers. paa bi sax dafa may libéré. da lay libéré am na loo ci man la. ci yow la hmm, ah waaw te muy wàllu yëngal bi ngay wax père lépp a ngi fi ñun fii lañ dëkk. non mais gëj ñu ko won de mais gëj ñu ko won de. yàlla xam na ko. Hmm, mais si liñ jógee nii si liñ jógee nii Zarko. bu ñëwaatee la gars yi di xam ndax metti nañu wala mettuñu wala jéen looloo nga ci moom wala nekkatu ci. nekkatu ci moom baay Baye la mbay guy gi dina ñëwaat de Baye Baye amul nee naa. waa Asbekaay bu ñu jógee ci nga xamante ni moom mooy doomu Medina bi xale bu